mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dalee nag eh, jàmm ci xibaar ay attaques yu métti yoo xam ne rek daan nay am ginnaaw Ousmane Sonko joxe ndigal ñi nga xam ne rek ñoo ànd ak moom ñu amal li nga xam ne rek moo di ab siga meeting eh, tax rek am si ñoo xam ne eh, jamono ji nag daan nañu ñëw foofee nga xam ne rek fa lañ bëggoon amal seen meeting di leen attaqué di xeex ak ñoom ba am si ñoo xam ne sax jot nañ cee jëlee ay gaañu gaañu yu métti ginnaaw attaques yi nga xam ne rek ña ngi ko doon def ñu xeex ak ñoom mu nekk loo xam ne nag doy na waar loolu xew fii ci réew mi di Sénégal ña nga xam ne rek ñoo di waa Pastef nag doon waajal bëgg amal la nga xam ne rek moo di seen mitin ay nit ñëw di leen attaqué ba tax sax ñuy xeex ak ñoom ba jëlee ci ay gaañu gaañu yu métti yu doy waar lool xew foofee nga xam ne rek fa lañ bëggoon amal seen mitin.